garabu fitna ku ko jëmbat toog sa kër ga du la yomb sëñ Bamba ko waxoon kon bëgg nguur jaru ko kon Cheikh Ibra fi jëlee maa leen di moom indi yaa nuy moom ndax maa leen di moom a indi xeex ya fi amoon li koy waral nag mooy xëccoo daraja mbaa koom moo tax sëriñ Mbay Jaxate waxoon ci nguur ak borom waa ji yorum réew rekk jarta réew loo yor yorum réew mujj di ab néew kuñ fi daa yeewu muy dóoree ko yeewu mujj nañ ko yeew suul ak yeewu jaaraama Cheikh